di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér te ànd ko njabootuk sëñ Tuubaa di ñaanal sëriñ Cheikh moom sëriñ sunu borom yàggal ko fi mu ànd ko njabootuk sëriñ Abdul gépp waaye di ñaanal sunu jëwrin sunu baay sunu xarit sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Xadar sunu borom yàggal ko fi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu sunuy mbokki bopp di nuyu mbokki taalibe yi fi teew di nuyu soppe sëriñ Abdul Xaadir yi di nuyu taalibe sëriñ Abdul Xaadir yi di nuyu dongo yi di nuyu képp ko xam ne teew nga fi muy lu mel ne journaliste wala takk der yi wala sax bu fi sapporté woon di sant it ñi nga xam ne ñoom lañ dénkoon jataay bi mu mel ne mënees na ci tudd sëñ am Amdi ak sëriñ Maam Moor xam sa diine mi nga xam ne moo doon moom lañ jiitaloon ci waxtaan wi ak sëriñ Seex Naam Mbàkke moom soxna ma woo moom sëriñ Abdul Xadar di wax ci turu sëti sëriñ Abdul Xadar yëpp rek te suñ kàddu xeebu ci lool waaye nag comme dañu cee dox jox ndigal rek ñu wax ci suñu kamtalaay kàttan di wax ne fi may njëkk a tàmbalee bala ma sant sëti sëñ Abdul Xaadir yi nga xam ne ñoom laa àndaloon liggéey bi mbokk yi laay sant ndax sëñ Abdul Xaadir dafa yaatu ginnaaw comme dafa yaatu ginnaaw nag dañuy bañ di tudd ñenn di fàtte ñenn donte boo xoolee délégation yi sax xay na mën naa am juum nañ ci am ñu yegg si euh, jàll leen seeni tur waaye nangeen xam ne yéen ñëpp yëg nañ seen teewaay gis nañu leen nga xam ne li ko dalee ci kër Seex Sëriñ Tuubaa yëpp yëg nañ ni teew nañ fi waaye mbokki sëriñ bi nga xam ne moom lañ bokkal ma maaram kon buñ tuddee ñëpp bu bu buñ waxee rek ma maaram rek tudd na ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn waaye nag rawatina ay dëkkandoom ndax ku ku tudd kër sëriñ Njoogu Mbàkke rek sam sam xel war a dal ci xam ne lu waa kër sëriñ Abdul Xaadir def yaakaar naa kenn du leen ci man waaye nag rawatina sunu mbokki gedde yi nga xam ne bu dee alxuraan ji danañ ci nekk bu dee seen doole danañ ci danañ ci jëf seen kemtu kemtulaay kàttan waaye bu dee gunge sëriñ bi yaakaar naa ko xam sëriñ Sidi moom sëñ Abdul Xadar li ëpp ci ñi nekk ci wetam ah, mbusoo bi la loolu nag ab soñña la mooy képp kuy sëti sëñ sëtub sëñ Abdul Xadar na nga xam ne dañ daa daanaa dégg ñu ne sëriñ Abdul Xadir ay soppe la bëri woon lool ay soppe boo xoolee ñi ñëw ci jataay bi ñu ci ëpp soppe sëñ Abdul Xadir lañ fi teewee kon li ñu suñu kilifa bi waxoon démb bi ñu koy siyaare loolu rek lay fàtt mooy dañoo digg nañu na yaatu ginnaaw ba noppi bañ koo yamale seen mbopp di dem di seeti seeni mbokk di maslaa ñoom loolu nag lii fer na ko lii nag aw sas la bu ñu xoolee baas yaakaar naa bëriwut siis yu ci manqué bëriwut loolu nag ab soñña la ndax woote nañ ñu wuy suñu kon nag nañ gën a takkaayuwaat bu baax di sant nag ci ñi ma bokkal sëñ Abdul xadir bu ma duggee foofu di ko jaarale ci sunu mag yi nga xam ne xëy na teewal na fi képp ko xam ne sëtub sëñ Abdul Xaadir nga mu sëñ Muhammadul Moxtada rawatina Cheikh Saliou mi nga xam ne wàllum communication bi moo ko yor dox ci jéego yu rëy rëy macha allah waaye nag di sant it sama mbokki bopp yi nga xam ne ñoo ma jiitaloon ci liggéey bii muy liggéey sëñ Abdul Xaadir bi awma seen fay ndax jiitu dafa metti waaye biñ ma jiitalee it bàyyi ma ma des ginnaaw ndax lii rek firnde la ci jël nañ seenu ñaq jox ko fi ki jox ko ki fi nekkal sëñ Abdul Xaadir jaayante nañ ngir bis bi jag loolu nag mooy yoon wi ndax sëñ Muntaxa wane na ko bët ki démb rek kon li may wax rek mooy ñi ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn di sant euh, sëñ du Samad ak sëñ am Ahmed ak euh, sëñ Modou moom sëriñ Cheikh ak sëriñ ab Abdou nga xam ne danañ mën a jël cant gi teg ko ci sëti sëñ Abdou Khadir yëpp ak ñi nga xam ne ñu suñu doom lañ ndax boo xoolee ñii ñenn ñi suñu doom lañ ñenn ñi sëti sëñ Abdul Xaadir yoo xam ne seen i waajur sëñ Abdul Xaadir moo leen meññ waaye kenn xamewul kenn loolu nag dafa am génn kilifa gu ma ko waxoon dane ma boo jëlee sant wi teg ko fële jaay ko jëndee ko ak taalibe nee na da ngay seex ñaari yoon nee na boo jëlee saw sant jaay ko jëndee ko ak taalibe da seex ñaari yoon nee na nag waaye bu fekkee nag da jël genn gi rek da nga seex ngir ki la meññ waaye nag ca nga yem rek kon ak taali bi rek mooy tax lépp mën a jàkk lépp mën a mat te lii boo xoolee organisation bi lépp jaar ci yoon maanaam jë takkuk der roy ci seex bi mooy tax mu mën a jàkk kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanal nag kii nga xam ne nii sëriñ seex moom sëriñ Abdul Xaadir da ko teg ci liggéey bi ci ab loxoom te mu njëkkee woon ci sëriñ moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdul Xadar ba léegi kenn musta dégg nu ne yàqu na wala dara xew na ci mooy sëriñ di moom sëriñ Abdul Xadar képp koo xam ne ni yéen a nga sëñ Abdul Xadir aw yiw wala bëgg nga njabootuk sëñ Abdul Xadir war nga koo ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ndax yàlla jox na cër yàlla jox na ko cër mu bokk fu baax waaye woyof lool ba ku ne ku mën a ñëw mu xajoo la loolu nag moo tax ku ne ci ñun saa su wootee dana ko jaral mu xar tànk tugg tubayam ngir ngir mu am ndam ndax li tax bu amee ndam rek sunu ndam la ndax sëñ Abdul Xaadir rek lay liggéeyal te am naa ci lu leer nañ ndax saa su ne ndim lay woowee di la soññ si ngir ngeen am jom ngir ngir ngir mën a ngir mën a jëf-jëf ju rafet joo xam ne ni ñëpp danañ ci teg seen bët ku bëgg ndam rek ku koy def kon nag loolu ñu la sunu borom yokk ko suñu borom defal la tawféex ak sutura di wax ne képp koo xam ne teewoon nga fi rek moom ñu ngi lay sant di la gërëm dañuy bañ di lim di jum te waxtu wi dafa xaw a sori ñu nekk ci waxtu nawet waaye nag ñu ngi jéggulu ñëpp di waajaat nag ak jëm déwén ndax murit moom li feek dugg ci bàmmeelam du tekki ak deram kon sëti sëñ Abdou Khadre yi ku ku jaayante woon war ngaa waajaat ku tegoon ngir ay addiya war naa yokkuwaat waaye nag di sant képp koo xam ne jëf nga ci indi sa teraanga loolu rek mën nees na ko tàmbalee ci sëñ Abdou Khadre sëñ Abdoulaye Mbaye peex ak ci njabootuk sëriñ bi ñoo xam ne ku ne indi nga fi teraanga yoo xam ne boo leen gisee teraanga yi xam ne dañoo roof doole monsieur le maire mu ci mujj na fi ñëw lépp euh, Abdou Lahad Ka ak euh, président Pape Diop ak euh, Abdoul Karim Fafana ak ñu bëree bëri ñoo xam ne sëriñ Jiilu Njoogu sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Abdou Bousso ak ñeneen ñoo xam ne nii dañu bañ di lim di juum sëriñ Abo Xuma ñëpp def nañ seeni teraanga yoo xam ne sant nañ leen bu baax a baax yàlla na leen yàlla fay yu yiw ndax lii bu mel nii seen jàppandal moo tax mu mel nii kon nag yàlla ñu ngi leen di sant bàyyiwuñ tan dañu bañ di lim di juum rek yàlla na fi jàmm sax te ñu fekkaat at yu bëri wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa